alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifadi bifurudin wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني وهذا لي السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu del ci waat ci 2485 te di altine li ñu ko ñaane woon rek yàlla na yàlla def bu altina ñëpp xëy liggéey Sénégal delluwaat di Sénégal naka jekk sax Sénégal la woon ci dimanche bi yëpp su ko defee noo ngi toll woon ci eh, nun suñ diine danoo defaral lépp lépp programme boo xam ni fu ñu toll rek mën na caa jël doxal ci sunu àdduna ba li yàlla bëggoon ci nun nu ko ci kaw suuf nu matal loola donte nag yàlla rek a mën a sàmm nit ba man mën a matal lii nu doon def démb te mu nekk ci cat la di bëgg a jeex lim ci lislaam tëral mooy xoolal saxaaba yi niñ doon dunde ba tabax tey jii état islamique bu dëgër bi nga xam ni ñu bari ba léegi ci la ñuy gouverner di ci profito ñu bari ci la ñuy sampoo yi ne cim réew réew ma du réewum lislaam waaye ñu jéem a tàng ci njubug lislaam gi lañ ca jàng lañ ca xam ak seen ngëm yàlla fam toll ñu dëgër looloo nag ba jóg taxawal ba siggi nag ba ñu seen leen ca kaw loolu lislaam rek moo ci gën a gaaw amul beneen méthode bu ci gën a gaaw du xaalis du du judd euh, du ay diplôme ak njubug lislaam la guy ne ci nit njubug lislaam gu ne ci nit li muy wax loolu lay def li muy def loolu lay wax ni mel ci kaw noonu la mel ci biir ni mel ci biir loolu lay mel ci kaw boo xoolee euh, jamono aboubacrine ba Ousmane ba Omar Seydina Ali ñoom ñëpp euh, ridwanullah alayhim ajmain ni ñu doon gouverner euh, ba léegi jullit yëpp war nañ caa mën a jariñoo muy ay gouverneur ki ndombay tànk yi nga gis ni léegi yëpp yu ci bari amoon na ci jamono jooja ñu koy gën di yokk muy gën di bari tur yi di varier ndax léeg-léeg contexte moom mooy indi changement waaye koo ci jàngat ay mbiram rek da ngay daal di gis ni nun ba léegi dabagul leen te danoo jàpp ne nun noo gën a avancé noo gën a évoluer noo ëpp xel am na ni jumtuwaay ñoom yu ñu amul waaye ci wàllu communiqué ci wàllu social ci wàllu yooyu yëpp nga xam ni moo yor état jégewul leen ci ba ba di leen ci dab ba di leen ci dab gis euh, parce que boo amee leader boo xam ni moom nga war a teg ndax moom sang bi ci boppam moo wax ni laa yuminu ahadukum xatta akuna ahaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wa naasi ajmain kooku ah, ah, saxiix an anas axrajahu ahmed wal buxaari alayhi salaam daa wax ni yée yéen ñépp kenn ni du gëm mukk nekk ku gëm lu dul ni man Mohamed ah man la gën a bëgg ci doom jim jur man la gën a bëgg ci waajur yi ko jur man la gën a bëgg ci nit ñëpp nit ñëpp nag bu boobaa jabar dugg na xarit eh, ñépp dugg nañu gis nga kon xol Omar ibnul Xataab ba mu nommé defe naa Umayr ibnu Saad mu nommé ko wilaayatu Dimashq ak Hims ak Huduraan ak Xinsirin ak yeneen birëb maa dafay nekk nag taxaw taxawaayu gouverneur ndax booba ku nekk amirul muminina yoway tasaare fépp foo xam ni lislaam ma nga nga yónnee fa ko yaa ko fa fal réew yu bari ci lañ profité ba tey jii ñu ngi dund lislaam Euh, ci yaatal goo xam ni saxaaba yi doon nañ ko yaatal lislaam def ay gouverneur ci gox yu bari ndax réew yu bari lu ñu wan ay arab waaye dugguñu ci lislaam lislaam dugg fa nag euh, état islamique daal di taxaw yónnee fa nag ay ndaw yu jub yu maandu li tax euh, ku ñuy tànn nga war a maandu mooy boo maandoo diir bu gàtt diñ ci defar réew ma nga nekk gox ba nga nekk wala quartier ba nga nekk boo maandoo rek égal bu maanduwul nag moom ci boppam ak ñenn ci ñu sos ci moom ñoo cay defaroo te defar googu musiba la moo tax ñii ñu tànn mu am ay ndaw ak i mag góor ki jigéen boroomi métier ñoo xam ni aw jàng lañ am ñu tudd leen ay député sas wu rëy rëy rëy lañu am ndax loo xam ni réccoo gàcce la bu yomal xeex mais bu ñu la ko joxee boo béggee yow xamoo liñ la jox ndax yow looy bëggagul yow demoo ba ci cappaandaw jadi looy bëgg ah mbirum àdduna mi ci feeñ saleer bi avantage yi ci feeñ ndam li waaw bëggal waaye nag ci suuf ci biir jàqal lool jàqal ndax kat sànni nañ la paxtab yàlla boo xam ni ñu munta xaar dara dara ñoo la ko sànni toog julli diglu kon mbégte mi na am fu ñu ko yamale mbokk yi waaw ki ko suy naa Omar ci béréb yooyu wala ñu toog na ay diir bu yàgg waaye yónneewul ci suy naa Omar dara léegi nag waaye ba muy jóg di dem ci ci ci Seydina lay saan Muawiya ibnu Saad euh, dafa doxe fa nekk jëm si Seydina Omar masaafa bu yaatu lool ak ay tànkam de dox gàddu ci aw sam mbuus ak benn euh, defukaayu ndox ak aw yatam woo xam ci lay sukkandikoo ndeysaan mu ne ci tukki bi di dox ñëw ba Seydina Omar Seydina Omar ni ko ah alam alam yaatuuka daabatan li tarkabaha lu tax joxuñu la daaba joowar mu ne ko alam yafaalu waaye walam ashuk la um daalik joxuñu ma ko de waaye sikkuma leen ci de en tant que njiitul goox gouverneur fa nga jógee am ay daaba waaye nga doxal sa tànk ah mbokk yi loolu moo tax ñooñu kenn du ñoom Omar laaj ko seeni axwaal ak <clears throat> fa demee léegi mu xibaar ko nam fa nekke moom ak ku ne fam la teg ak ñem tànn teg leen fa ñu bokk liggéey bi ak it nam doon séddale lépp loo xam ni euh, dafa génn ñu war ko séddale mu rafet lool lool waaye wax nañ ni ba ko Omar bëggee yeesalaat palga ah wax nañ ni euh, sawaru ca sawaru ca ndax euh, ñàkk xir ci Euh, pal googu xam gum xam ni alayhi salaam moo ni euh, innaha amaanatun wa innaha yowma alxiyaamati xizyun wa nadaamatun ila man axafa bi xaqiha wa adda alladi alayhi fiha saxiix nee na xam gum xam ni alayhi salaam moo ni ah mbokk yi lii kóoluteef la de bu yowmal xiyaamee day dina doon gàcce ci kiñ ko joxoon dina doon koo xam ni bañ ko ko joxee day jël na ko ci fukki loxoom ci waxin joxe ay àqam yëpp yëpp canam joxe est-ce que loolu yomb na mbokk yi loolu yombul de gis nga ko mën nañ ci indil lu ëpp téeméeri téeméeri ay exemplaire ci ñoo xam ni dañ leen a fal ñu wane ay exemple yu am solo waxal naa leen fii koo xam ne Seydina Omar ba ko waa dëkk ba kalaamee ni ko yow sa góornóor bii bis sàngam doon ko gis weeru am na bis bu ñëw semaine bu ñëw nangam nangam am ci góornóor boo xam ni bi Seydina Omar di xool miskin yi fuqaraa yi ñu jox asaka ji moom léegi ca la bokk Seydina Omar ni waaw lii mu naka la mën a nekke waaw dafa nekk faqiir dafa ñàkk dafa ñàkk te ganima mooy loo xam ni état ko moom du ko laal ñooñu ñooñu ñooñu dañu defaru dañu defaru defaru googu nag moo taxoon ñu dem ba Omar ibnu Abdul Aziz ci jamonoom ñu dem ba amatuñ benn jullit bu mën a lekk asaka ndax ñi yàlla waxal ñëpp léegi riche nañu léegi ñëppay génn asaka ñëpp loolu système la système boobu ba léegi pourtant mën naa ne mën naa ne alakula alin kon des na ci nun des na ci waaye góornóor boobu bu ba ko suy na Omar wooyee ni ko yew bis sàngam waa waa dëkk bi duñ la gis boobu nekkee kilifa war di julli si julli juróom nangam nangam am bis boo xëy kenn du la gis nga sax ci dàkk rek ndekete bis boobu ci lay fóot benn yére bi mu am euh, toog ca biir kër ga biir néegam ndeysaan bu yére bi wow bu ngoonee mu sol ko kon bis boobu du mën a génn beneen bis bi mbindaan mi du ñëw moom mooy def liggéey bi mbindaan mi doon liggéey caay yàlla gis nit ku defaru mooy mel noonu nag mooy euh, bu baree alal ak bi mu ko néewee doo xamee ci comportement waaw doo ko ci xamee mukk bi biñ ko falee ak bi biñ ko folee doo ko xàmmee ci comportement bàyyi la ci kër gi ak doom la ci kër gi doo ko xàmmee ci comportement ci ay jikkoom benn melokaan lay am boo xam ne du change mukk mukk gis tax e, yonent bi alayhi salaam daana wax lu ama am solo allahuma man wuliya min amri ummati shay'an farfiq bihim wala boog fa bihim farfiq bihi wa man wuliya min amri ummati shay'an fa shaqqa alayhim fasfaq alayhi bi sahih muslim an aisha radiallahu taala anha yow yàlla koo xam ne dañ koo fal ci sama biir xeet wii ci seeni mbir ah, ñu jiital ko ca dara mu ñeewante leen ca fal gañ ko fal nekk ci bopp ba yàlla kooku yàlla na nga ko ñeewante yërëm ko ku ñu fal nag ci mel benn mbir ci sama xeet wii mu mu mu métti leen ja mu métti mu mu ci ñoom lool palga ndax moom moo leen teg lu metti yow it na nga ko teg lu metti rek gis ko bu ki kon almuminu xaqun laa tudxiihi nicmatun wala tusrifhu niqmatun wala yafraxu bi ataa'i dunya julit dëgg daal xéwal du ko nag daa yaatu lool ak palak alal ak mbooloog wér ak yépp dina bewloo nit fekk lu julit dëgg gis nga Eh, eh, yii na ci àdduna du ko kontaan loo ba tax muy def lu mu wërta def ma asaaba min musibatin fi l ardi wala fi anfusikum ila fi kitaabin min xabli an nabraha inna dalika ala laa yasirun tegte li kay laa tasaw ala ma faatukum wala tafraxu bima ataakum bima ataakum wallahu laa yuxibu kulla faxuur dafa ma nga xaj la bu xamee ni yàlla moo yàlla daal yónni yonent bi rek la yónni day daal di noppalu lu ko dalit te fekkal mi ngi doon góor góorlu nekkul ci ku nuur bàkkaar mi ngi tuubal boroomam di góorlu mu jàpp ni ab natt la bu dee ku mel ni nun nag bari bàkkaar nuur ca nemm na xam ni lii day dal nu te nu sib ko noo ko liggéey waaw waaye ma asaaba min musibatin fil ardi illa fi anfusi wala fi anfusikum illa illa fi kitaabin nit ki day gëm yàlla xam ni yàlla ay dogalam dafa jiitu sunu juddu dafa jiitu sunu juddu waaw mën nañ ci nit ñu baree baree baree baree bare ci ay exemplaire kon mbokk yi ñii ñu fal ñun suñuy mbindaan lañu waaw suñuy mbindaan lañu nag ah, ku ci tudd weer woo xam ne léeg-léeg ñu ni assemblée tey ji am na plénière am na nangam nga xool jafe na lool lool plénière boo xam ni ñëpp ay ñëw daal ma daal lool jaaxal na daal bu ñuy fal daal bureau yi commencement bi ñëpp lay ñëw waaye am na ci yoo xam ni genn wàll gi duñu ñëw loolu teguwul fenn bis ñu lay soxla ni mu néewee boo fa yorul benn post yooyu dañ ko war di respecté même boo nekkee bitim réew da ngaa war dagg sa yitte nga ñëw lii ñu def nañ ko bàyyi eh, nga war a dugg huit heures jàngale xaar ba neuf nga ñëw waxtu woowu amel nga àq dix millions Sénégal yëpp te paj mu ñàkk jaar yoo nag rendez-vous yu yu yuy fausseté signature yoo war a def yéex a ñëw wala dem génte dem dëj yëpp ñii koy def nañ ko bàyyi mbokk yi lu munte ñàkk nag foog mu am xam naa waxtu jot na rek ñu ngi yem fii bu suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihali bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا